Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di gërëm di sant. di rafetlu seen teewaay avec les programmes de Vision euh, suñu jàngatu tey bi nag ñu ngi koy jëmale si daara yi kaw yi mooy université Cheikh Anta ginnaaw bi ndogal euh, wàccee si recteur le recteur de l'université monsieur Amadou Mbaye euh, ak le directeur du COUD képp nga xam ne ñoo koy jiite ay amical teggi nañ ko tey mooy décision bi nga xam nag autorités universitaires yi dañ ko jël euh, jëmale ko si étudiants yi xam nga ni jamono yi passé fitna amoon na fa waxoon naa ko keroog si benn jàngat ñaan yàlla yàlla def si ndox mu sedd te boo xoolee jàmm teel suwaat na fële ci université Cheikh Anta Diop bu ñu ngi jël décision bi rek pour indiwaat jàmm dalal xel yi si campus yi euh, dëkkuwaay xam ngeen ni université ëpp na plus de quatre-vingt mille étudiants am na ay étrangers yu fa nekk jóge seen réew yi dans la région ba Afrique du Nord di sàkku xam-xam fii daaru caw fii kaw mais li ñu gis na dayoo ba si biir néeg yi nga gis ay ngannaa yoo xam ni euh, dafay faral di dafay day faral di daw si campus ba si biir moo tax bi nga xam ne recteur jël dogal boobu ne ñu mën a saytuwaat xoolaat bu baax ngànnaay yooyu fan lañ jógee ak ñenn na ko fa dugal ëllëg mën nañu ni ay loraange si biir université Cheikh Anta Diop euh, les euh, facultés muy amicale yëpp ñi nga xam ne président yi ñoo ko jiite tax na ñëpp benn jamono képp ku fay dugati baa nga am ne baa nga euh, nekk étranger am na benn comité boobu benn comité de suivi boo xam ni moom lañ fas yéene samp balaa ngay am ne balaa ngay dugg ci foofu dañ ko war a saytuwaat xoolal ko bu baax ma ni fitna bii fan la jógee euh, kan moo ko fi indi kenn ñaanul yàlla mu wasaare biir université université sàkku xam-xam la mooy la temple du savoir du euh, du rébellion du caserne du camp du kujje politique du centre commercial xam-xam lañ fay sàkku guddi ak bëccëg euh, ku fa am baccalauréat fa ngay jubal fa ngay jubal ñu ma la sol xam-xam yaa xam ban façon xam-xam nga bëgg yaa toutes les facultés à l'université daara ñu ko samp ba léegi am na juróom benn fukki at ak ñett ba juróom en 1957 1956 la ñu samp université Cheikh Anta Diop waxoon naa leen keroog fii ay borom xam-xam ay président ay ministre ñëpp jaar nañ fa ba nekk tey jiite nañu seen réew nekk fa ay ministre ak ay kàngam loolu mooy daara yu kaw yi du UCAD rek nga dem ndar dañu nekkoon engrais grève fan yi yëpp gis ngeen étudiants yi euh, sagar ngi xëy diggante euh, professeurs yi étudiants yi euh, fépp muy université Iba Der Thiam bu Thiès Assane Alioune Diop Bambey partout étudiants yaa ngi xeex pour ñu dara leen seen gëdd ñi ngi laaj bourse ñii ngi laaj ay conditions yu wóor dara seen xel mën a jàng jàng yu mucc ayib euh, ki nga xam mooy Innocence Constant Innocence Ntap Ndiaye c'est la présidente du Haut Conseil du dialogue social takk na ay euh, ay dàllam euh, jubal dans toutes les universités délégué étudiants yi Euh, professeur daara yi yi ñi nga xam nag ñoom ñooy euh, recteurs yi directeur cour cours ñu mën a waxtaan génne université si ay fitna ma ne euh, ki nga xam mooy le ministre de l'enseignement supérieur chaque Oumar Anne jox naa yu ndigal yi kaw yi mooy le SAES e ñu ubbi ay négociation ñu toog ñu mën a génne wax seen saafara ak seen i jafe-jafe moom la ñu jot na université mu am ay concertation université dafa laaj ay euh, ay négociation yàlla réforme universitaire euh, war nañ ko delloosiwaat dellowaat xel yi te loolu bu ñu ko defee rek université Ndakaaru dina am jàmm mais li ñu fitna bi ñu gis mais heureusement gis ngeen ni jamonoy passé diggante si mbokku séeréer yi ak joolaa yi euh, sagar commencé na xeeñ keroog maa ngi mais alhamdulilah di sant yàlla bu baax séeréer joola ñoo bokk ndey bay ñu mel ni comme alpulaar ma ni suñu Sénégal bi euh, kenn ñaan yàlla firnde fi toutes les ethnies sont muy joola bi muy wax naa ko léegi muy séeréer bi muy jaago bi muy bambara bi muy soose bi euh, soninke bi ñun ñëpp ñoo bokk fu ñuy yeewoo Sénégal xamul fitna ñaanul euh, ñaan yàlla mel ni comme yeneen yi xam ne ñoom takk démb ak barki démb mais heureusement négociation yi moo indi yëpp que daaray kaw yi jàmm ñëwaat na euh, bu ñu rek tëj euh, amicale yooyu dañ koy tëj éternellement dañ koy tëj pour le moment c'est provisoire en attendant li recteur wax monsieur Mbaye ñu toog waxtaan xam kuy ku étudiant am na ñoo xam sax ñi fanaan loolu du dëgg du yoon dafa war a tax bu Ndakaaru te jël nañu ay dogal yu doy waar ay mesures ay mesures draconiennes ay mesures yu sévères raxas ba mu set wecc université Anta Diop bu Dakar université référence la xooleen ki ñu tuddee le parrain muy Cheikh Anta Diop di un brillant universitaire kenn ñaanu yàlla tey université bi tàkk am fa ay mboose am fa ay lënt lënt jot na ñu tax fi seetaane jël ko fii boobu fële ci université bu Dakar jàngat nag maa ngi koy tëj jëmale ko sur les mille enseignants nga xam nag nguur gi dañu leen di waaj recruter. dans la fonction publique président Sall moo ko wax euh, ki nga xam mooy les syndicats des enseignants du secondaire ñu ngi koy rafetlu mais dañuy war rek le président Sall ak les responsables du ministère de l'éducation nationale ba ñu nekk euh, un recrutement politique yaa démb rek am nañu ñaxtu fële ci RTS 834 enseignants yi génn comme maître ñoom ñi laaj seeni i intégration dans la fonction publique te war nañu gëstu bañ a nekk par parlo politique mu bañ a nekk APR la nekk ba tel c'est pour tous les Sénégalais ñu mën leen recruter dans la légalité dans la transparence et surtout dans la bonne gouvernance mbokk yi leen gërëm leen sant borom jàngatu bés bi jëmale ko ci université yàlla na fi yàlla indiwaat jàmm dàq euh, fitna bi jërë ngeen jëf beneen yoon incha